Mais la reine, la reine de la musique Alma, au Sénégalais, c'est Moussa Versailles, aux États-Unis, Brooklyn. Alma. Oh Moussa Mais Versailles Mais Versailles Mais Versailles, Versailles, Versailles Mais que mais a quoi ah mais Viviane ah, yaa ko tojoon Rwanda te nee na foog nga tojaat ko biir New York City mais <laughs> Versailles mon ami dafa kenn du yow mais <laughs> la laa ilaha illallah <laughs> yii moom ñooy woo ko yóbbu yii ana Rwanda bi ana Rwanda baa ngi nii Kigali bi wax nga dëgg lii nga soloon Kigali wax nga dëgg laa ilaha illallah lii nga soloon Kigali eh fii bi mosoo sol bi yow bii mosoo sol bi bii barki sëñ Bamba ah mais mais Moussa mais Moussa mais Moussa bii yoon nag xanaa doo solal ay Rihanna ak mi mi ka de ah waaw bii yoon moom doon solal moom bii yoon moom bu ñëwee ñeneen doy na sëkk waaw bi yoon dañuy xaar moom bii yoon moom dañuy xaar moom la reine ah sénégalais yi léegi ñu ñàkk la man loolu leer na ma nañ loolu moom ni mal layi la déedéet déedéet bii bu ko solee dañ koy jox coupe bi bii bu ko solee séné amérique lañ koy jox états-unis bii de bu ko solee mais Moussa mais Moussa affaire yi garaaw na waaye Moussa waaye waaye Versailles liggéeykat nga waaye ah macha allah macha allah macha allah la ilaha illallah ku ko mën a ku koy jéem bokkul Moussa Versailles ah mais Versailles mais lii mi ngi bëgg a rey ñoom Rihanna ak ñoom Nicki Minaj lii daman man maa la ko wax. barke borom Touba américain buy bandi bandi lu boo see ci moom dootoo ko dolli ñii Moussa rek ah. chet tet tet tet tet tet tet tet tet mais daw bi man bi muy daw pour man wi am daa lu mu bootaale bi daw ak parce que déjà daw ci talon. jigéen mënuñu ko. mënuñu ko non seulement ngay daw ci talon. mais pour man caata mi la kii boobu kii boobu daa yëg talon kii boobu yëgul talon de boobu trophée bi rek lay gis. non mais lii mais mais Versailles nag mais Versailles nag Versailles nag mais Versailles nag ah mais mais Versailles mais kon bagage yi nii moo nekk ci am na ci bagage yi am na fële boutique bi nekk Sénégal. ah. c'est tet tet tet tet tet ah mais lii c'est grave. non dama yii dama koy nëbbu de li mu war a sol moom foog ma nëbbu ko li mu war a sol moom du ma ko wane moom laa ilaha illallah Moussa Versailles bi nekk États-Unis bi ak bi nekk Sénégal c'est la même chose ngeen xamee ko noonu li nekk fii moo nekk foofu macha allah Versailles chet ñoo war a sañsel Viviane de samedi incha allahu rabbi Versailles mode top mode